bi de mënul am nit. ñu ne ko heure bi de mënta am nit. ndax tàngaay bi. ndax tàngaay bi. bu julee tàkkusaan ba ca kanam lay am nit. bu ñu julee tàkkusaan ba ca kanam lay am nit. waaye comme man sama soxla moo doon ñibbi rek. nee na comme soxlaam boobu mooy ñibbi rek. ma dugg toog. nee na mu dugg toog. bi ma duggee toog coté fenêtre bi. bi mu duggee toog côté fenêtre bi. ma toog quelques minutes rek. mu toog quelques minutes rek. benn waay ñëw dóor ma fii ci loxo. benn waay ñëw dóor ko ci loxo. kii sax puusal puusal ne ko puusal puusal nee na mu puus. dem naa bay réagir sax mais ma daal di puus. ci dem na bay réagir rek waaye daal di puus. parce que oto yooyu kenn daawul bëgg a toog ci digg bi ndax boîte à vitesse yi mu amoon day génne chaleur buy daw. nee na boîte à vitesse yi moo taxoon day génne chaleur buy daw kenn bëgg ca woon. ñoom ñaar rek ñu toog ñoom ñaar rek ñu toog. presque 6 heures. nee na ba 6 heures jot. nit ñi commencé 6 bi mu jotee mu sedd rek. nee na 6 heures bi quelque sedd rek. en quelques minutes. quelques minutes. oto bi fees oto bi fees. départ. ba caaro yi nit ñi commencé wàcc. ba caaro yi nit ñi commencé wàcc. bi ñu waree Padois. bi ñu waree Padois. ñëpp wàcc nañ. ñëpp wàcc nañ. ba mu des man ak moom ak chauffeur ba mu des ñoom ñaar ak chauffeur mu dóoraat ma. nee mu dóoraat ko ci loxoom. ne ko sawaay. nitu yàlla nga jógee. nitu yàlla nga jógee. te li yàlla defal li ngay ñaan yëpp yàlla defal na ko. akbar kon boo kër gi xam naa ko. nee na kon kër gi xam na ko nag. ah ñaan googu nag. nee na ñaan googu nag. la bëgg tey nga defal ko Idrissa Seck. la bëgg nga defal ko président Idrissa Seck. le 24. nee na le 24. yàlla def ko président du Sénégal au premier yàlla def ko président Sénégal au premier tour. loolu laa xam na ni yaay sëñ Abdou Khadir mën ko ñaanal ko. nee na na ni yaay sëñ am nga ko te mën nga ko ñaanal. nee na mi ngi gërëm ñëpp mi ngi sant ñëpp. Mbacke Balla ay sa jëmb ji yaakaar lu dul kër gii nii.